ci yonent et di dalal ministre de la santé di gouvernement bu premier ministre Amadou Ba son excellence le président de la république Macky Sall Ngom Njaay yëkkati ay tànkam tey ñu gis mool wu njëkk wi nga xamante ne nii mu feet goo ak sunu yaakaar Cheikh Sidil Maxtaar di waajuram di Cheikh buumi nu duppee maamam mbokk yi tey jii madame la ministre xol yi sedd nañu na nga xam ni lépp lu bokk ci Cheikh Albounama Kounta min ko duppee tey seen xol sedd na te dafa yaatu bu ñu nee Cheikhul Bourama nag mu jaasaan rek fépp fu ahluy kunt yu nekk ci réew mi ñu ngi wékku ci Cheikhul Bourama kunta Cheikhul Bourama kunta mooy waajur Cheikh bu Mohamed kunta mi sos njaasaan kooku sos njaasaan nag bu nu amee fu nuy fajoo ndigal bàyyeekoo ci xalifa bi yegg si ci porte parole am ak njabootam ñu ne seen maam lañ koy tudde loolu xol sedd rek lañ ci mën a am ñu ciy sant yàlla na bu baax kàddu yi nag li ñuy def rek mooy jox ko ki nga xam ne bi nga duggee ci tund yu ba léegi bi mu lay gunge bokkit ci kër gi di maire Ousmane Sarr di koo xamante ni lépp lu ñeel Ndiassane itteel ko xelam a ngi ci xolam ngi ci kon monsieur le maire yow la ñu bëggoon nga jël kàddu bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وردني بالخدارة مسبرني على بلائك يا رحمن يا موزعني سر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا لا أخشي نسنا عليك أنت كما ربي على نفسي قد أخنيت أغفر لنا ولمن من بيننا نزب من ديحة التين أو في دين يا الله صل على ساجد قبل الورى فهلا بسبت ميعات أمين ربي يا الله أه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

tey jii mooy sa kilifa koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam euh, cent cinquante ans sans ordonnance barke maamam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa rakkam yi fi nekk yëpp nuyu chef de village Serigne Ama Kunta rakku xalifa bi bon ba léegi monsieur le ministre mu ngi nii toog ci suñu wet fu ñu nekk mu nekk wàññu ak ah, xalifa bi moo toog ci sa kii di xalifa Kunta di porte parole xam ni mooy ay tànkam mooy bëtam mooy loxo ah, rafetal na lépp jotal na matale na kon sëriñ xalifa yow yal yàlla guddal sa fan ah, bàyyi la ak sa xel ak sa sago ba nga àggale liggéeyu sa liggéeyu maam bii ah, madame la ñi ngi lay nuyu bu baax di jël nuyoo bi ko teg ci loxo sous-préfet mu teg ko ci loxo préfet mu teg ko ci loxo gouverneur mu teg ko ci sa loxo nga jox ko président de la république nga xam ne kenn du moom lépp moom nañu koy wax parce que tey jii fii ñu toog rek doy na sëkk ci lu mu liggéey fii ci Ndiassane ñu wàññi koo de madame le mbaar mele nga xamante ni fële nga xam ne fan yi gàmmoo bu mu ñëw fu ne ñu jël fay basket tëngëj tey loolu bay daa faj tam ñu wàññi koo lii nga ñu indi la muy centre de santé bi wax dëgg yàlla gis nañ bu ne mais lii ñu exposé bii ni ñu ko waxee ak lii fi lim lépp doo ñëw bi jël sa deret ñu daal demal Dakar demal Tivaouane lépp a ngi fi kooku nag wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal kon président Macky Sall yàlla na ko yàlla kattanal yàlla lafal ko cat musiba balaa kenn du moom man ñii di wax ak yow ak promoteur la ma ànd ak moom gis li muy liggéey ci Sénégal loo xam kenn liggéey ko tax ma wuti ko lax bu ànd ak moom waaye Ndiassane gi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax xel bu bu fi toog rek mu ngi bàyyi paysan xel bu baax ndax paysan dafa ñu bàyyi xel kon wax ji xam naa du gudd madame la ministre kontaan nañ wax dëgg yàlla jongoonu sa temps bàyyi na suñu jot jàdd ci wàllu santé bi nga xool ko tey li ma gën a neex da ngaa wax case de santé. case de santé gàtt na lool waaye li muy faj dafa bari nga ñëw ci poste de santé soo ñëw ci centre de santé kontaan nañ suñu xel dal xanaa kay boo gisee docteur bala muy da wax ko sa rek xam naa ni centre de santé moom macha allah waaye poste de santé bi itam bëgg na laa a lëmis nga gis suñu ci boo ni ci kañ xee benn coonte rek dinañ gën a kon daal kontaan nañu njaboot gaa ngi nii commune serbloo ngi nii conseil municipal ngi fi ñëpp a ngi nii toog beneen bi ci des madame la ministre kii nañ sama wet mooy doomu xalifa bi nekk coordinateur xilaafa yi nekk coordinateur benn bokk yaakaar président Macky Sall ba pare nekk doomu xalifa bi nekk adjoint maire moo nekk nii nekk jàmbaar fàkk te nekk ñayu xare bàyyi si nga nee di taawu xalifa bi ah, ñoom ñëpp a ngi nii waaye dañ ko ne yaay suñu rak doy nga ñu jiital nañ la doxalal muy alxaaji Mamadou Kounta ñu tuddoon ko nag El moo Modou Kounta xalifa bii fii làqu te demul fenn te papa yi Mouhamed Kounta au conseil Mouhamed Kounta a ngi nii toog di au di xaritu di xaritu président Macky di jàmbaar Ndiassane daal tey ñëpp a ngi nii kontaan nañu trop trop ah, di wax nag suñu préfet bii xam naa ne day nomination neex na mu nekk gouverneur waaye man ndax naa bu dee gouverneur foofu di jëm ndax taxawaayam rafet na ci biir na ci biti fépp fu mu du am coow du am xuloo jàmm rek a fay am. madame la daal boo dee ci président de la république ne ko euh, ahlu kunti waa Xurayshin yëpp kontaan nañu xol yi sedd na xel yi dal na xam sa kuntaa ngi nii doomu Alaaji Sidi Muxtaar ku ne xam na ni papaam ak président Macky Sall benn lañ woon réew mu a yóbbu na ko bu faj doon tax du dem du dem mukk waaye moom itam bu doon xele bu yaru ni fa sama papa tegoon loxoom fa laa koy tegaat maa ci ginnaaw président Macky Sall ubbi benn moment taxaw di ko jàppale ci biir ci kon moom itam mi ngi nii toog njabootu ahlu kurdi yëpp daal ngi nii xam na président ni ko ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax parce que moo ñu bàyyi xel te nag ku leen bàyyi xel ñu bàyyi la xel te bàyyi nañ xel bu baax ah, Mamadou Diop nga nii di président man daal nuyu naa ñëpp gis naa ñëpp waaye damay bañ lim rek muy yàgg ndax jataay bi te maam Khalifa mii itam yaramam neexul waaye góor góorgóorlu rek nekk jàmbaari fàkkatur sant nañu gërëm nañu seexal bekaay mbay ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yaa ngi rafetal ah, di sant média yi yëpp wax dëgg yàlla parce que ñu ngi leeral waaw parce que man nag la ma waxoon saa bu leen nitu président bii ñëw lu weex lay sol naa na leer ndax président lu leer rek la bëgg moo tax sol lu weex tàll pour muy leer kon daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa ila liqa ba beneen